ñu leen di ndokkeel baax a baax si ànd bi nga xamante ne yéen a koy ànd ak programme Kossy TV eh, mu neex ñu ànd ak yéen safan bi ñu ànd ak yéen ndax loolu la ñu borom télé bi yaree di seexaa Seydou yaa na ci am xitmal Mawlana Cheikh Ibrahim waxtu wu nekk si loolu la ñuy xiir tey nag ñu jàkkaarloo eh, beneen yoon kenn si kilifa yi taawu xalifatu saahibul faydatu ya si kër gi mu ñëw tey fii si biir rawdu bi ñu bëggoon koo jox suñu micro su ko defee mu wax ñu turam ñu daal xam rek taxawaay bi tey fii lu waral man maa ngi tudd ibrahim Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ñu may dàkkantal ci Baye Baye mu Cheikh euh, suma bàjjen mi maa ngi am seede yu may seede ci moom xam naa ko bu baax waxtu ma bàyyi yónnee ci moom maa ngi ko fekk mi ngi jàng alxuraan wala di jàngale ñu la koo xam ne ku yiw la exemple exemplaire la kuy jël exemple jigéen dina ngi jël ci moom te bàyyi daana ma yónni ci moom waxtu ma yónnee rek danga fekk mi ngi jàng alxuraan ngi jàng di jàngale te waxtu woo ci jigéen ñi exemplarité bu mag la ndax moom borom këram gërëm na ko wàllu yàlla yëpp gërëm nañ ko ñëpp mucc nañ ci làmmiñam ñu mucc nañ ci loxoom amul kenn ku mës wax ne kii def na ma dara wala toñ ma amul te maa ngi jéglu parce que moom newoon na nit koo xam ne jigéen ñëpp war nañu jël exemple ci moom mooy taawu cheikh ahmed euh, cheikh ibrahim cheikh te bu ayaan moom mooy dem marché jël këllam bi dem ba marché dugg ñëw toggal borom këram toggal taalibe toggal ñëpp mës a gis ne moom mooy taawu sëriñ bi simple bu baax bëggal ñëpp li mu bëggal boppam kooku nag mooy julit eh, ñi nga am lu ñu naqari tey xanaa di jàng aaya rek wala massanakum minal xawfi wa juu'in wa naqsi minal amwaali wa bashiri saabiriina alladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun koo xam ne nag borom këram gërëm na ko ne kooku moom dañ ko ubbi bunt aljanna yëpp juróom-ñaar mu dugg ci bunt bu ko neexee dem ci aljanna yonent bi ne nit ki mu ngi nekk ak ki bëgg ki bëggutoon nu may wàlli yàlla yi Cheikh Ibrahim Cheikh Tidiane Rasulullah jàngal alxuraan di ko jàngale amul kenn koo xam ne mu naa ne kii def na ma nangam amul exemplaire bi mag la ci pay bi man bàyyi def ma lay ci moom toujours waaye amul benn waxtu boo xam ne ngay ñëw fekk ko mu ngi ci mu ngi jàng alxuraan fekk ko muy jàng alxuraan dooy parce que bàyyi moo ñaanal loolu moom dafa ñaan yàlla karaama mu nekk di alxuraan doomam yëpp jigéen ñi ak góor boo demee ci 11 leen fekk ñoom ñëpp ñu ngi jàng alxuraan samedi dimanche altine talaata àllarba alxamis ajjuma ñu wàcc seen papam moo ñaanal loolu mu ni karaama na nekk di alxuraanam ñu ngi koy wax mu ni fa tajal xifzika kitaabikal karim karaamati ilaa liqaayikal azim loolu ci la yar njaboot tamit rabbaani mooy ki xam ne mooy jàngal mooy jàngal suñu baay yëpp doomam mi ñooñu jàngal jàngal satami doomam bi fi teew léegi mooy jàngal sati sataami te ñëpp alhamdulilah mokkal nañu ñu ngi sant yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko euh, yàlla yëkkati ko ci maqaamay kawe njabootam yàlla barke leen euh, teg ci taalibe bi yàlla muñ leen metti na trop waaye ku judd rek danga dem euh, yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka maytun wa innu bi dangay dee ak képp ko ànd yow dafay dem kon na kenn du fi des nañ dellu ci yàlla aw ci yoon di def li bàyyi daan def di wax lam daan wax lam daan wax nag mooy li Cheikh daan wax yonent bi daan wax eh, yàlla ñu yàlla taas ci kii na moo amul chekk ne aljanna dem ndax yonent moo ko wax nee na nit mi ngi nekk ak ki mu bëgg loolu la amoon ñu satisfait ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di leen sant di leen gërëm di gërëm di ñëpp bépp jullit taalibe mi di nekk ci àddina bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di sant bu fekkoon ne du problème bi am couvre-feu bi ñu kon àddina bi dañu ñëw jóge fu nekk ak yooyu teew fi ndax jikkoom ji rafet jikko baayam la yoroon ñoom jigéen ñépp 11 heures dañu bàyyi boo ci dem dama fekk nga ci te bàyyam daf daan def leen nit bu bi nga ko jàngee ci suba juróom-ñaari xisib ci guddi gi dana ko tari ba pare jël xadis di ko jàng ba ci suba teel ñaari waxtu la daan nelaw moom seen bàyyi loolu leen yare ñoom ñëpp jigéen ak góor waxuma ne nag kii nga xam ne mooy taawam mooy yar ñëpp mooy ñu yar ñu ñëpp ñu ngi koy yàlla yàlla xare ko aljanna te amul sikk ne aljanna la jëm ndax li yàlla wax la daan def lim tere mu bàyyi ko kooku nag eh, am nañ am nañ eh, am nañ yaqiin ne aljanna la jëm am na yaakaar gu rëy ne yàlla dina wàcce yërmande ci ak ci njabootam asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.